Mariama nuyu nañ la. maa ngi leen di fay Mouhamed kontaan naa si ñëw bi nga ñëw fii. rédaction bu Sen TV point info ñoo la sees si. Mhm. defoon nañu yow ak yow benn interview depuis 2014. Mhm. léegi par la suite ñu sollicité la nga acceptel ñu. Euh, dañu bëggoon nga présenté wu par rapport am na internaute yoo xamante ne ak say farce yoo xamante ne gëj ñu la dëgg ñu nañ la gis pour nga présenté wu. di nuyu di kontaan si li ngeen ñëw fii di nuyu waa Sen TV télé bi ak euh, site bi di kontaan bu baax di nuyu waa Sénégal ñëpp ak sama fans yi. Euh, man nag euh, xëy na am na Sénégalais yu ma xam yu si ëpp am na ñoo xamante ne peut-être xamuñu ma maa ngi tudd Mariama Ba nekk artiste chanteuse nekk Sénégal. Mhm. donc sama carrière démarré depuis 2007. depuis 2007 2007 la commencé sama première single depuis bobu nak ma ngi ci musique bi ma ngi yëngatu def naa album voyage na lu bari mhm. donc voilà. ok mhm. bon gis nañ depuis trois ans euh, vraiment da nga tukki won mhm. euh, lu waral lolu D'accord. accord euh, ëpp na sax trois ans peut-être nit ñi bi ngeen di mujjee sama cœur 2014 si la defoon sama ñaari single. Jinne Town ak Sida si ngeen ma woowoon ma invité leen ngeen ñëw donc euh, bi ma defee sama album dama am ay ay ay programme yu bari à l'étranger loolu moo waral euh, ma ñi ci gëj gëj ma gis mhm. mais du dama bàyyi musique wala dama kii non maa ngi si maa ngi yëngatu waaw mhm. voilà donc euh, programme bi ñoo bëri rek si si si biti comme album bi machallah. allah doxoon na te producteur bi du woon sénégalais mhm. amoon nañ possibilité yu bari pour Europe bi nit ñi def ay tournée bi ñu jógee Europe ñëw dañuy dama yàggoon nag France boobu. Mhm. jóge foofu ñibbi si Sénégal après mhm. amaat beneen xéewal dem Amérique. Mhm. xëy na moo waral nit ci gëj ma gis. mais maa ngi fi. bon est-ce que si biir absence boobu euh, am na loo préparé Sénégalais retour bi nga xamante ne moom ngay waajal bon pratiquement ñëw nga quand même est-ce que am na lu bees loo andi. en fait man mosuma fi jógee man maa ngi Sénégal toujours. c'est vrai que xëy limay dem mo bari rek waye ma ngi fi te préparer na sama sama fancy bien sûr que préparer na dara parce que si sama deuxième album la nek donc préparer na ñaari single yu ma andi pour sama fan en attendant que ñuy euh, euh deuxième album bi donc si loolu la nek mais musuma fi jogué jàpp jàpp ne sax dama def retour xëy na dañ ma gëj a gis dama nekk si liggéey rek parce que nekkul nekk dañ la gëj a gis rek da nga arrêté wala nekkatul rek non mën nga liggéey alors que dañ lay gëj a gis ci média bi dañ ma gëj a gis mais maa ngi produire maa ngi am samay concert di jouer ji di dem di ñëw donc voilà fi mu nekk dal projet bi mooy si deuxième album laa nekk te andi naa ñaari single euh, pour pour sama fans yi ñu xaar en attendant deuxième album bi di pare euh, de ñaari single yi lan nga si woy déjà lan mooy thème bi. Mhm. waaw waaw euh, thème bi mooy bi ma defee yaay sama chéri sama benn morceau ba pare ma dem Papis Niang woo ma ma dem seetaan montage bi. ma xool euh, xool vidéo bi xool dégluwaat texte bi comme si wayuma ko mais ma koy dégluwaat ma mu ànd mu mu joxaat ma beneen inspiration bu bees ma gis ne que suñu génération sëy yi day neex commencement bi waaye dañu dem ba si biir rek divorce yi dafa bëri daal suñu suñu génération loolu moo ma gën a inspiré donc ñaari morceau yi muy wax si mbëggeel wala sëy bu amoon ba amatul sëy bu neexoon parce que soo dégluwee yaay sama chérie da ngay gis ne que sëy bi dafa neex mais soo dégluwee laaj yi da gis ne que sëy bi neexatul donc inspiration bi fa la ma fa la ma ñëwee xam nga booy seet depuis ma def def ma ni sa doom si jigéen rek laay wax. dama def def ma ni sa doom après def bul ma nax mu mel ni da nga dama tijji benn benn livre boo xam ne saa ma waxee si kii ba pare rek keneen ne ma man tamit li mooy sama problème. Mhm. comprendre nga. donc euh, bi ma defee dama def bul dama ne ko def ma ni sa doom. Mhm. keneen ñëw ne bul ma nax ma ñëw ne ko yaay sama chéri. Mhm. comprendre nga mu ñëwaat ne ko laaj yi loo woon mooy laaj yi daal nabatuma mm-hmm. waaw laaj yi soppeeku na mm-hmm. xawma ma nag si man la wala si moom la waaye en tout cas soppeeku na xam nga donc ñaari single yi si loolu lay wax mm-hmm. day wax si divorce wax si suñu génération lan moo tax lan mooy suñu problème ñun ba suñu suñu ay sëy daal du yàgg. donc ñaari single yi si si si loolu lay wax. ok euh, donc depuis bi nga débuté sa carrière 2007. Euh, ba 2018 euh, sa sa carrière est-ce que mën nga ñu wax loo xamante ne si wàllu musique mhm. euh, moo xam réalisation yi nga jot def wala fi nga jot lu la gën a marqué quoi si digg si depuis 2007 ba 2018. Hmm. xam naa ne lu ma marqué mooy <laughs> def ma ne sa doom xam naa ne peut-être mooy sama premier single. Mhm. xëy na sax marqué wu ma woon avant. Mhm. mais daf ma marqué surtout si fan yi. parce dama gis ne mooy sama premier single depuis def 10 ans léegi 2007 ak léegi 10 ans la. Mhm. mais plateau bo tok wala ko dajel pourtant def naa yeneen titres yu bari. Mhm. def naa yeneen morceaux sax xeyna yu ko nak <coughs> mhm. mais tout le temps def ma ni sa dom day ñëwaat ci ci ci si kaw yenen morceaux yëpp. on xamna né marqué na ma. Euh, lan moy sa rapport ak yenen artiste sénégalais yi. am na ñu ma xam am na ñu ma xam ñu am démb rek maa ngi wax ak Aram Thioy téléphone. Mhm. waaw aram sama nit ku baax la mhm. démb wax nañ téléphone lu yàgg ma nag moom parce que ñibbisi na mi ngi Sénégal mhm. am na ñu bëri ñu ma si xam mais am na ñoo xam ne xaw ma leen waaw euh, xëy na ma seetaan leen ci télé ñu way ma neex ma apprécier ko mais am na ñu ma xam ñi ma xam nag relation yu baax la ñu am am na ñoo xam ne di ngeen demalante am na ñoo xam ne doo leen demalante waaye xamante ngeen di ngeen daje fenn taxaw waxtaan échanger xam nga ku nekk dem bon à l'avenir y a un projet nga yor nga nar préparer à l'avenir quoi pour ñu mën ko xam. ok man sama <laughs> sama lépp ci musique là, parce que defuma leneen. Mhm. musique laay def ku ma xam Sénégal si nga ma xamee xëy na sax ku jox cër moo ma jox ma mhm. parce que defuma leneen. Mhm. moo loolu laay def donc sama projet yëpp daanaka xëy na si loolu même su fekkee am naa yeneen business yu may def su si gañee dara damay am dina am lu si. du ma comp dugalaat ci dugalaat si musique bi. mais quand même musique bi yaa ngi gis sa bopp. waa ah mais gis sama bopp moo waral sénégalais yi xëy na luñ toog lu yàgg duñ ma gis parce que musuma génn Sénégal euh, bitim dem bitim réew dem dem noonu rek pour vacances wala pour non saa yu ma génnee fi musique moo ma yóbbu yàlla def na loolu. na sama carrière euh, yàlla def na saa yu ma génnee pour euh, pour voyager rek musique moo yóbbu kon maa ngi siy gis sama bopp xëy na nag nit moom. moo bëgg nit su ko su soxlawee cent franc su ko amee rek mi ngi séentu junni su amee junni mi sentu séentu million. Mhm. da ngay bëgg chaque jour affaire yi di gën a avancé mais maa ngi maa ngi siy bu baax. mais est ce que mën nga ñu wax lan mooy sa secret parce que chaque fois Mariama boo toogee ak moom beauté bi nekkoon si moom même beauté bi ngay retrouver wat. Ah. lan mooy sa secret. <laughs> est ce que am secret gëw ma ne am na ko de mm. <laughs> waaw gëw ma ne gëw ma ne am na ko ku nekk ak ñu la yàlla bindee rek. Mm. waaw loolu la rek. Euh, pour man pour man aw ma aw ma beauté dama jàpp ne su ma setee rek si lay rafet su ma sanguwee njàmpe ak saabu ba set pour man rafet naa waaw sama xol bu setee ma yéene Mouhamed jàmm yéene Clarisse jàmm pour man rafet naa parce que li nekk sa xol day feeñ sa kanam pour man secret bi su nekkee am na loolu la euh, porteur de voix nga ban impression nga am suñu Sénégal bi ni muy doxee léegi mhm. waaw waaw sant yàlla rek xam nga àdduna dara du mat dañuy bëgg muy gën a baax rek chaque jour waaye fu lu bon am rek am na lu baax. Mhm. Sénégal ñiy baax ñu ngi baax ba tey. Mhm. waaw ñiy baax ñu ngi baax ba tey di ko rafetal di sellal diine bi di seen côté liggéey ñi ngi koy defar mais am na côté boo xamante ne xëy na surtout ñun suñu milieu. dina mhm. dina xaw a doy waaye lépp lu si mënti nekk rek yàlla yàlla na rafet euh, raxas xol yi. Hmm? ñëpp nekk benn. Mhm. ñu takku liggéey Sénégal mun a avancé mhm. mën a jëm si kanam ñu mën a bokk ci réew yu mag yi nga xamante ne. Mhm. xam nga ñoom ñoo ñu ëpp doole ñu dem ba raw leen. pourquoi pas parce que am nañu lépp pour pour am ko. bu dee bu dee liggéey bi xam-xam bi am nañu yàlla jox ñu am xam-xam. bu dee njàng la am nañu ñu yàlla may ñu jàng mooy xam-xam bi rek am nañu lépp pour mën a dem si kanam donc voilà Sénégal lu muy doxee bi avancé pour man gën a baax rek mën naa la laaj est que da ngay politique non xaw ma sax nuñ koy defee amoo ambition politique non franchement déedéet wax dëgg yàlla ban idée nga am si président de la République Macky

Mhm. vraiment taxaw na trop. Mhm. bu njëkk ba damay fàttaliku benn benn benn single rek laa amoon single bi yóbbu na ma fu nekk Sénégal. Mhm. mais léegi mën nga ñibbi si Sénégal def fi 6 mois doo am programme. artistes yi ñu ngi ñu ngi galéré bu baax ñu ngi toog di chômer amuñu lu ñu def. donc su nekkee côté bu ma koy gisee man sama domaine bi ma nekk laay laay laay mën a wax. xëy na su nekkoon damay def commerce wala ma yor benn entreprise wala dara peut dinaa mën a kii bëgg nañ mu mhm. si tu veux bëgg 2014 mhm. am na la est-ce que célibataire nga wala marié. Mhm. est-ce que mën nañ tu n'es pas obligé de répondre. bien sûr ah mais aw ma ja soxlawul ma wax aw amaguma dara ni ma bàyyi woon may wëndëng wëndëng ba tey mais nag fi nekk nii. am naa yaakaar am naa yaakaar mais ne dina def ok <laughs> donc nous ngi lay sant di la gërëm. Content naa ok. waaw bu fekkente ne am nga peut-être ay baat yu mujj nga wax ma. waaw amul bad bu mujj bi mooy damay damay kontaan di wax sama fans yi ne que préparé deuxième album bi ñu ñu ñu nyu préparé mais nag laaj yi loo mi ngi si mi ngi si internet bi. Mhm. pour l'instant ñu ngi si def promotion bi bu baax. Mhm. donc ñu xaar rek ci euh, 2018 bi incha bëgg album merci Mariama merci Mouhamed c'est gentil aduna yaa ka mën a waree defoon naa ni lépp mbëggee sama digganteeg yow xamuloo ni woon dama fas yéene woon a doon sa yaay sama digganteeg yow xamuloo ni woon dama fas yéene woon a doon sa yaay di la daban a boys, ba